salaamaaleykum yéen a ngi seetaan seen émission Ndiolor wala Gindi ñu waxtaanee ci après nomination bu Bassirou Diomaye Faye sénégalais yaa ngi continuer di joxe seen xalaat comme am nañu ci moom yaakaar ba fal ko nañ takk ñun tam liggéey ngir jiitu ko ci waar wi buñ ca nekkee dañuy neex a tungoom te dañuy neex a orienté ci wàllu développement. comme ñun ñëpp bokk benn bëgg-bëgg mooy développer Sénégal faaw ñu joxante loxo ngir wàcci wàccuwaay boobee nga xam ni mooy fexee Sénégal suqali ko ak wàllu naataange gu mat sëkk en tout cas loole mooy seen xemmemteef ñoom ñi nga xamante ni bii ñooy ñu bëri ci askan wi jote waxtaan ak suñu ay ndaw réaction yi dooteeku ci yaakaar ju sakkan lool ci Bassirou Diomaye Faye xaar ci moom mooy rek li taxoon ñuy xeex nit nag mënul dara mais suñu borom mi nga xam ne moo ko tànn yàlla na ko kàttanal ba oyofal ko yenn bi ba lépp li nga xam ne moom la ñuy séentu ci moom suñu borom defal ñu ko ñun ñëpp Ousmane ko position bii mu taxaw foofu lañ foofu la ko suñu borom doon xaare te teg na ko fi léegi nag li des mooy mu doxal te incha allah dina doxal yaakaar naa ku xeex sa xeex ba fal président yaakaar naa bu ñu la tegee première ministre di nga ko war a mën a doxal. liste bi nag liñ ciy xaar mooy comme que ñoom dañoo ñëw ngir sensé. Amna ci yu beure beure bëri gars yi buñ leen fa Mandal rek dina xawa doy war dal man dal buma sañon ñu teg lu en tout cas dëkk bi mom won na pour ay jafe-jafe metti won na mais nag euh, nañ bayyi lepp rek si loxo yalla comme yalla andil nañu ah teggal nañu amna andil nañu président boo xam am nañ bu tas en dëkk bi mom fi tol ni wax du yalla laaj na tamit organiser wat application yi sonal nañu ak yenen ak changé na suñu liggéey te ñun dañuy fay ay droit xam nga léegi nag ñun dañuy dem ba suñu liggéey moo dañoo gis sax suñu bopp gouvernement bu bees rek boo xëy dañuy deen ci suñu bopp en tout cas ministre transport moom képp ku mu koy jox yàlla na nekk ku xam transport askan wi sama bopp laa ko commencé bu kenn jàpp ne rek Basirou rek moo war a defar wala Ousmane Sonko rek moo war a defar ñun ñëpp nañu ànd defar Sénégal parce que ñun ñoo ko moom suñu Sénégal bu baaxee ñun ñun la su bonee ñun ñoo ko moom kon bu kenn xaar Basirou pour mu defar bu kenn xaar Ousmane Sonko pour mu defar xëy na ñoom lañ jiite mais liggéey bi ñu ñëpp la nit ki da dem nga wuti métier ñoom ñi fi nekk nag ñu dimbali booy yi wutal leen ci lu ñu jàpp te bàyyi lii ñaax ndaw yi wutal leen fu ñu liggéey ñu dem liggéey yaa ngi dégg kenn ku ne lay sa métier nga nekk ca gis ca sa bopp waaw loolu mooy réew jàmm ni ñooy waaw parce que ndaw yi dañoo war a liggéey kenn ku nekk xam nga objectif bi nga xam ni ci la nekk njàmbaarte gi mu jàmmaar gëm gi mu gëm projet bu Pastef waaye teewul nag mu révélé ay couac yoo xam ne am na ci coordination ak communication ci bisu prêter serment wu Bassirou Diomaye Faye Serigne Saliou Gueye nekk njiital yéenekaay bi euh, di euh, yor-yor ci waxtaan bu mu seqoon ak waa euh, Sénégal 7 ci la métitloo le fait ñu séddale ay invitation te sédduñu ko dëggantaan lu jaadul la ndax bu dul sax moom jëmmam mais journal bi mu jiitee war nañu ko mën a invité comme toute la presse ba tax ne moom mu dénoncé ko. c'est avec vraiment douleur que may toog fi sax di wax ci loolu Coulibaly man de dama jàpp ne bu fekkente ne dafa am lu bees lu fi ñëw. te loolu nag très souvent ñu ci bëri sax dañ koy bëgg a sës le pouvoir sortant man je dirais non. ah oui waaw parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ñi yoroon organisation bi c'est le pouvoir sortant c'était une co-organisation ñi nga xamante ne ñoom ñu bees ñi. Mhm. mooy la coalition et le PASTEF ñoom aussi amoon nañ seeni lot de carton d'invitation xam man avec le pouvoir sortant ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ma jàpp tëj ma ñooñu du ma xaar ci ñoom ñu may invité on peut comprendre bu doon ñooñu kese la parce que ñooñu seeni cérémonie mosuñu ma ci invité mhm. et je ne me suis jamais plaint donc si doon ñooñu je ne me plaindrai pas mais pourquoi je me suis plaint c'est parce que ñi nga xamante ne ñoom ñu waa c'est je ne dirais même pas que dama leen non parce que pour moi je suis toujours dans un combat démocratique. ñoom dañu dans un combat démocratique moi je suis dans un combat démocratique donc peut-être il y a des atomes crochus tout simplement mais ce fait que nous dem bay invité presse bi man même man en tant que directeur de publication de Yor.. Yor, man suñ invité mais eh, xanaa sama journaliste reporter bi nga xamante ne moom moo couvrir seen campagne ñu war ko mën a jox accréditation mu war a mën dugg. man invité wuñ ma c'est pas un problème man mën nañ ma jox sax ma jox sama rédacteur en chef wala suma assistante ñoom ñu dem. bu doon ci man kese la kenn du ma dégg mais li ma metti mooy sama journaliste reporter bi nga xamante ne moom moo couvrir campagne bi waroon fa nekk couvriral ma cérémonie bi. Mm-hmm. pour ñu war ko mën a bind. moom dem na ba jam ñaa on lui a refusé l'entrée parce que simplement ki nga xamantene momo en tout cas au sein du PASTEF nous ko accréditation il lui a donné rendez-vous mu dem ba Diamniadio mu woko mu fermer portable finalement il a voulu même négocier entrer sans accréditation les gendarmes lui ont dit non mm-hmm. je lui ai dit il faut rentrer ne te fais pas humilier là-bas parce que waroon dem sax ba pour ñu lay jox accréditation c'est-à-dire sa accréditation da doon fekk fii sunu sunu sunu locaux yi lañ ko doon indi wala ñu wala nga jël si ko mais su fekkee loolu moo ci des il faut rentrer mais est-ce que loolu et loolu ça m'a heurté xam nga tax mm-hmm. gis naa yeneen journalistes yoo xamante nii ñoom jox nañ leen ay ak ay ay carton d'invitation gis naa ñeneen ñoo xam ne jox nañ leen ay carton d'invitation waaw mais ñooñ ñun waay yor yor lan la ñu ëppalee ba ñuy jox ñooñ ñun di ñu bàyyi mu nekk Serigne Saliou Gueye waaye ginnaaw kàddu yi ñaxtoom yooyu kilifa yi woolu nañu ko euh, métit lu situation bi massawu ko te jéggalu ko xamal ko ni njuumte la njaal njaalbeen gu nekk noonu lay mel dëggantaan njaalbeen gu nekk noonu lay mel kàddu yi Golbert Diagne mi sàkku ci mag ñi wala ku dirige ba euh, jeexal sa mandat nga dem ci demin bu rafet boole ci ay leçons de morale yu bàyyeekoo ci ndam si yàlla sa yal na yàlla yërëm te yokk leeram képp kuy def politique war nga déglu ce message fort de Golbert Diagne ndax dina la doy sëkk leçon nga xam ni àdduna intelligence moo koy doxal surtout boo nekkee ci géopolitique. gale kenn gënu fi ay kenn kenn gënu fi bay kenn kenn dàqu fi jàng kenn ëpp fi doole waaye moom il est vicieux Dieu mu seppi Macky Sall def ko chef d'état delloo si waat ko nu wax ni dana wat suba bu ci jógee dana génne gouvernement bi.

J'insiste sur ce mot jusque dans son étymologie, la plus profonde créée par les Français à l'Académie française. Pas de sentiment. Si nous le diplôme, la culture est une chose, l'instruction est une autre chose, l'expérience est une base, la compétence est une finalité. Nous nous sommes les gens qui tey amul faral papa amul faral yaay bu kenn seet lu neex Massamba nga jël alalu réew mi alalu askan wi jox ko ku nu jox rek na nga mérité sa salaire yow it la liggéey na nga ci jub bu ca sàcc bu ca wuruj d'ailleurs alxuraan indi képp ku lekk danta bi benn doomu riba ba yow mal ba yow mal xiyam daa ko daa daa daa ko leeral ci kanam moo laan nañu liggéeyal réew mi non coow jeex na. Yalla bu la maye pétrole indépendance 60 nu ñëw ba 2018 mu génne pétrole génne gaz génne or génne fer ñu am ay ndaw yeen suñu doom ngeen mak mu fi nekkon ca tàngu Senghor di am ay teraanga ba 2019 mag ki foluwaat jëlal sa jaada toog sa bir kër du julli sa jàkka ja te jël xel yu rafet yi wax ko mag ki bañ occuper un poste poste bi bi la jox liñ lay fay 20 jeunes mën nañ ci liggéey

nek fi tay nar fi nekk ëllëg gannaaw ëllëg yàlla may ko kenn muy ay kàddu deug yu am solo bàyyee ko ci ndam si yàlla sa Golbert Diagne na yàlla yeesal dem ci kom Bougane Gueye Dany bokul won ci élection présidentielle yi da mujj ne ay militant am na ko nekk tànn fu la neex mom day xaar deuxième tour fofu élection yi amul deuxième tour waaye taxul mu fàtte Sénégal ci Màkka ga nek di Umra la ñaanal Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak Sénégal jàmm. ci fête indépendance bi maa ngi sàkk suñu borom ci weeru koor wu tedd wi mu dolli jàmm Sénégal président Bassirou Diomaye Faye mi suñu borom teg réew mi ci loxoom li mu nas nisër yéene ko yal na ko yàlla jox kattan wi président Ousmane Sonko yenn wi ñu ko teg yal na ko suñu borom woyafal yéene bi mu am. ñu am ko ñëpp ci defar réew mi yàlla nañu ko yàlla yombalal yàlla na yàlla def jàmm ci sénégal yàlla na yàlla def tawfeex ci sénégal yàlla na yàlla dolli jàmm ci sénégal yàlla nañu yàlla kattanal yàlla nañu yàlla dolli lépp loo xam ne bànneex la te ñu bëgg ko ci réew mi li ñu bëgg di defar réew mi yàlla na ko yàlla yombalal ci ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi am yéene defar sénégal vive le sénégal vive la république

ci secteur privé boo xamante ne dafa am doole ndax réew mi def koy jàppale état jàppale ko sénégalais yi ay jàmbaar lañ waaye sonn nañ moo tax ci fan yii di ñëw lépp li nga xamante ne war naa ko jël ci ay mesures bokk ko waxtaan ko ñoo xamante ne ñoo nekk ci secteur économique bi muy secteur privé muy commerçant yi muy ñeneen ñi nga xamante ne seen loxo ngi ci dinaa ko def pour ñu mën a def loo xamante ne mooy wàññi. Euh, jafe-jafe yi nga xam te ne am nañ ko ci dund gi waaye loolu yëpp tamit gannaaw jafe-jafe yi dañoo war a taxaw ci lii dalal réew mi gannaaw def nañu juróom benn fukki at ak ñeenteel di fête indépendance dafa jot tamit ñu taxaw xool ba xam fan lañ bëgg a jëmale Sénégal ak naka lañ ko fa bëgg a jëmale ndax Sénégal dafa way war di wéy di doon modèle ci Afrique ci gouvernance maanaam nu ñu téye réew mi ak ci ni nga xamantene non la ñu respecté ak ak yelleefu doomu adam yu ci yi fi dund ba ci réforme institution yoy manam naka la ñuy doolelee li ngànku rew mi de ci am exemple buñ ci bëgg joxe te yag ko wax tamit moy man mi bés biñ ma fale ba def ma président de la république ma prêté serment ci laa décidé ne cërub ndombal tank secrétaire général Pastef les patriotes bima bima te bi ko bés ni ke tay Sénégal nak ñi ki jité won dañoo bari ay yoon yu ñu jaar te doxul baaxul jagul ba ci pétrole bi feñ méthode bi ñu ko waroon fësale ak protéger ko noné dañ ci lajj à 100% mo cent Ousmane Sonko wat cuune gi nga xamni mom na gaay yu Macky Sall yi cuune bi ñu gisee pétrole feñ ci Sénégal. su ñu demee ba gis pétrole Sénégal li won responsable attitude responsable état bi moy dañu jëk bal ne ah suñu code pétrolier bi parce que biñ koy def dañ ko sous le régime de l'incitation moy nu def ba nit ñi nangu jël ay risques. Hmm. légui nak risque gis nañ fi pétrole société li jox total xam nañ ni fofu amna total def recherche parce que ñi ngi ko jox Sangomar ak euh, Saint-Louis offshore gis gaz fële gis nañ fi pétrole ci diggante boobu kon ñëpp xam nañ ni comme euh, même même même même même socle bi la ñëpp xam nañ ni fii am na pétrole total du sonn xam na ni foofu am na pétrole li ñu waroon njëkk a def mooy benn nañu réformer suñu code pétrolier bi. dégg naa 31 décembre président Macky Sall naan dinaa def concertation avec tous les segments ensuite proposer à l'Assemblée une réforme du code mais jaratu ko parce que signé na ay contrat yoo xam ne 45 ans la ñu engagé. Sauf fi code bu presque tous les 20 blocs qui 45 ans parce que des par exemple euh, concession c'est deux périodes c'est une période des périodes de 10 ans renouvelables deux fois donc da ngay ci jamono ci période nous dañuy stabiliser dañu def li une wax stabilisation seen contrat mooy li ñu signé fi mu ne nii kenn mënatu ci dellu gannaaw soo andi woon code bu baisse, ñu ne changé nañu régime fiscal bi changé nañu euh, paramètres pour barème bi ni ñuy etc. c'est pour l'avenir mais nous moom s'il commence à exploiter en 2019 c'est par rapport au contrat yi Macky Sall signé kon dit que le pétrole bi la ñu waroon taxaw amuloo lu justifier parax paraxe bi ba joxe suñu pétrole yépp doog a ñëw taxawaat naan damay def ay concertation kon yooyu acte yu garaaw a garaaw la yoo xam ne régime Macky Sall def nako ko te li mu yàqal Sénégal kenn xamul nu mu toll kenn mënul xayma nu mu toll li mu yàqal Sénégal jàngeen jëf mbokk yi jeexal nañu seen émission Jolloor xel gi ak gi gi ci lañ leen di sant bu baax te di leen ñaanal yàlla di leen jox dox itam bis bi ñu dëgmal ak yeneen numéro ci seen émission yaa ngeen jëf